ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures euh, jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle dalal Alassane a nekk expert aéronautique euh, nekkoon tamit ci armée sénégalaise ñu fas yéene waxtaanee Euh, crash bu avion Air Sénégal bi nga xamante ne amoon na ci 5 septembre 2015 ba pratiquement sept personnes euh, ñàkk ci seen bakkan moom moom Al Hassane Hanne moom moo daal di euh, alerté woon si cas boobule ak tamit tolluwaay bi nga xam ni avion boobule amoon na ko ba waratul daw euh, lu ni mel taxoon pratiquement ñu daal di koy raje wala sax xañ ko àqam ak yelleefam ci biir armée sénégalaise daañu waxtaanee mbir mi ak moom ak anniversaire u crash avion boobule daañu waxtaanee tamit ak kili di Al Hassane Hanne Euh, dossier euh, terme sud maanaam ñi nga xamante ne dañ leen a délogé woon foofu foofulee ca Wakaam euh, ca terme sud mu juróon cow lu bëri dossier bi fan la toll ak tamit yeneeni ponk yu soxal actualité bi dinañ ko abordé ak kile di Alassane Anne nekk expert aéronautique ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. ci ñaan yàlla rek lépp luñ fi wax muy euh, lu jëriñ askan wi voilà euh, ñu lay remercier kon ci sa disponibilité euh, laaj bu njëkk bu ma lay laaj moom mooy nga ñëwaat ak ñun tuuti ci sa dund ci biir armée sénégalaise expérience bi nga xamante ne am nga ko ci armée sénégalaise waaw armée sénégalaise ku ko dégg sa xel def ci militaire militaire laa woon mm-hmm. Euh, nekkoon armée de l'air nekk en même temps euh, technicien d'aviation euh, def plus de vingt cinq ans ci armée donc demoon jàngi bitim réew waaw ma Maroc spécialement waaw defi fa samay spécialité dellu liggéey liggéey ba disons ci gàttal Euh, sama génn armée euh, sax du woon sama coobare lu ci ëpp li ko waral mooy euh, song bi ñu songoon ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkoon terme sud dëkkoon ci suuf soo xam ne Sénégal moo ko moom Sénégal jógoon pour ñun ñi fa nekkoon ñiy def mat ñeent fukki at Sénégal jógoon pour jaay suuf si ñu taxawoon pour mu jaay ñu ko ba ñoom ñu nangu ko Eh, di defar kayit yi mm-hmm. suñuy njiit militaire ñenn ci ñi ci ñoom ëpp ñu doole rek taxaw carrément nañu eh, suuf si ñun ñoo leen ko gën a soxla mm-hmm. dangeen di mën a génn fii rek wala lépp lu ngeen soxla ci armée dootu leen ko fa am mm-hmm. donc loolu moo gënoon a tax man ci sama bopp ma dogu bi ma demee ba am lu presque vingt plus de vingt cinq ans ma taxaw daal ne su ma gisee leneen damay génn armée dem voilà mais ñu buggoon xam rek euh, naka la demee Alassane naka nga duggee ci armée bi euh, sa sa carrière euh, ci biir armée sénégalaise lan nga fa doon liggéey comment ça s'est passé voilà. waaw xam nga armée nit da ci dugg par conviction. waaw man yàlla dafa def en principe sax waru moon mësa nekk armée parce bi ma. ñooy aviation moom moo nekkoon sama sama bëgg-bëgg waaw ma dem Air Afrique ma demee Air Afrique nag jànkonteeg jafe-jafe yu tar yoo xam ne ci wàllu waajur sama benn sama yaay euh, amoon jafe-jafe yu metti feebar ma dem ba vraiment mënatuma jàng waaw ci laa euh, bàyyi ñëw toppatoo ko en moins d'une année mu génn àddina ci laa ne xaaral ma euh, jóg dem continuer métier aviation bi ci armée ci laa dem duggu armée euh, vraiment ñu yóbbu ma ma dem fi spécialisation dellu si nekk armée de l'air di toppatoo seeni roplaan voilà donc euh, vraiment nekkoon fa nag yaatu woon fa trop mu nekk sama famille waaw ma amoon fa vraiment ay am di jàmm waaw nekkoon ci liggéey bi Euh, dogu woon ci ba ñoom ci seen bopp ñu xamal ko seen bopp ba moo waral sax euh, bi ma demee ba bëgg a tàqalikook ñoom euh, façon bu ne def nañ ko pour mu bañ a dem parce que en quelque sorte pièce incontournable laa woon foofu lu ci ëpp su jafe-jafe amee daanaka suma ma teewul du duñu tranquille ñoom ci seen bopp waaw loolu demoon naa ba am euh, kii boobu euh, dayo boobu ci biir armée de leer donc euh, malheureusement ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite woon moment yooyu seeni intérêt bopp rek lañu xooloon xoolu ñu intérêt Sénégal donc man musuma leen laaj leneen lu dul nañu xool intérêt réew mi waaw ku fas yéene dogu duggu armée jël fetal pour xeex ngir sa askan loo loolu intérêt taxulaa jóg donc euh, malheureusement nag ni ma ko waxee song nuñ ma ba ñoom loolu daal moo waral mu jóge armée en 2011. Euh, léegi yow euh, si armée bi pilote nga woon da nga doon réparer avion est-ce que Alassane Anne daan na dem dem guerre est-ce que vrai comme niñ koy waxee militaire nga woon wala. waaw militaire moom militaire la rek defe naa ne ci nekk euh, bataillon parachutiste wala commando ñëpp di ko euh, dàkkantale euh, militaire aguerri ak ñun ñu nekk armée de l'air pratiquement li ñu wutale bariwul amul sax différence parce que bépp boo diplôme boo war a am pour jàll au grade supérieur yéen a koy defandoo boole kook bu jafe-jafe amee da ngay jël sa spécialité tegee ko ne ànd ak ñoom guerre moom def nañ ko dem nañ Casamance dem nañu euh, dans le cadre des Nations Unies République démocratique du Congo euh, man personnellement euh, bu ngeen xoolee maa ngi bokkoon ci seen bat maanaam contingent militaire bi àndoon ak bi demoon République démocratique du Congo en mars 2005 muy le premier contingent sénégalais bu dem sous le chapitre 7 maanaam avec possibilité d'engager le combat waaw euh, bi ma fa demee aussi bi ma fay dem boobu armée de l'air amu fa amu fa détachement waaw état-major euh, général des armées moo ma désigné woon ma dem bokk ci contingent boobu ba ma fa demee aussi euh, wutewuma dara ak unité d'infanterie yi fa nekkoon le 30 juin 2005 date fatidique boo xam ne kenn du ko fàtte ci addina Euh, ñëpp ragaloon ne date boobu Congo day tàkk ñun euh, contingent Nations Unies boobu ñun ñoo génnoon ci mbedd mi dégg nga ak suñu armement euh, ak tout ce qu'il faut yor suñu lépp pour bu jafe-jafe amee ñu mun a intervenir protéger personnel Nations Unies bi protéger seeni installation donc guerre la woon Euh, la preuve am na sax suñuy euh, naataango yu ci jot a ñàkk seen i bakken waaw Casamance dem nañ fa di dem élection euh, dugg ci àll bi itinéraire bi ñu waroon a jaar ñun suñu détachement armée de l'air au dernier moment ñu dérouté ñu jaarloo ñu feneen détachement marine nationale jaar fa ñu attaque leen am na kuñ ci reyoon waaw donc euh, militaire militaire nga rek. boo militaire ñaata at nga am si si armée bi ak tamit euh, at yooyu nga am si armée bi euh, benn wala ñaari histoire yoo xam ne marqué na sa vie si armée sénégalaise. at yima am ci armée bi bari na fii am naa plus de vingt cinq ans ci armée bi ma ci marqué bari na li ci gën a marqué mooy. Euh, vraiment bu ñu dañu nekkoon ay unité de soutien waaw maanaam euh, bu jafe-jafe amee ñun ñoo nekk euh, base arrière le plus souvent ñun ñooy dem pour les évacuations sanitaires ku gis li daan xew Casamance di nga gis ni lu doy waar la ngay jékki-jékki ñu ne la attaque am na fa nit daanu na dem leen jëli ko ngeen jëli ko indi war ko jagat jagat génne ko avion bi am na benn bés boo xam ne euh, li ma gën a marqué ci armée mooy euh, keroog bi attaque amee am ci koo xam ne euh, daanaka pratiquement ñaari loxo yëpp dafa taqalikook moom waaw mu ñëw vraiment ñu di ko génne avion bi pour dugal ko ci ambulance bi amuloo fenn foo jàpp. donc euh, loolu dafa bokk ci loo xam ne duma ko mës a fàtte waaw duma ko mës fàtte ci armée bi euh, tey Al kon après vingt cinq ans euh, nga nga génn si armée bi moonte day mën nañu wax ni dossier terme sud bi bokk na ci est-ce que mën nga ñu expliquer carrément dossier terme sud naka la la génnee si biir armée sénégalaise voilà dossier terme sud man bi ma ñëwee ci gàttal Euh, soxla bi ma soxla woon moo waraloon sax ñu gën ma pousser ma ñëw jege ci camp bi parce que euh, mission opérationnelle yi heure waxtu wu amaan dañuy obligé taal seen oto dem jëli ma maa ngi dëkkoon usine bentali sama kër famille léegi ñu ne ma il faut ma jege si ci laa jóg taal li ñëw jël ci euh, logement yi nekk ci wetu camp bi période boobu ndekete logement yooyu Euh, pratiquement armée sax yoratu ko woon logement yooyu moom la ñu wax ne déclassé woon nañ ko parce que man maa ngi fa ñëw en an à l'an 2000 donc euh, depuis 1994 logement yi déclassé déclassé nañ ko ba euh, état du Sénégal jël ko di ko morcelé waaw bi koy bi ko état du Sénégal jële di ko morcelé ñi nekkoon foofu. dal di def demande euh, demande à ce que vraiment bu fekkente ne dañ koy joxe dëkkuwaay rek ñoom ñi fa nekk seen doom juddoo fa euh, seen lépp nekk fa seen àddina yëpp fa lañ ko def euh, ñu ñu jaay leen au moins logement yi nga xam ne ci la ñu nekk wala bu fekkente ne dañ koy def ay parcelle ku ci nekk ñu jaay la parcelle waaw ak nu mu munti demee ci la ñu def loolu ñu dem ba ci biir en 2008 ñu ngi commencé euh, démarche yooyu en 2000 2008 ñu jékki-jékki rek euh, hiérarchie militaire bi daal di ñëw jox ñu ay sommation ne ñu il faut ngeen jóge fii ñu ne leen pour lan ñu ne ñoom euh, seen coopérative militaire bi la ñu jaay terrain bi ñu ne leen mais terrain bi ñu koo jaay coopérative militaire un te fi ñu nekk titre foncier global la titre foncier bi une partie jaayoon nañ ko coopérative militaire bi ba pare donc coopérative militaire bi logiquement warul mën waratul mën a jënd foofu euh, ci lañ ñu xibaar nag ne ñu euh, foofu euh, ngeen nekk chef militaire yooyu dañ dañ leen bëgg a jaay doole génne leen fa mais yéen seen dossier mi ngi en cours état bi mi ngi koy exploiter et c'est en très bonne voie ñu ñëw nag jàkkaarloog ñun jéem ñoo intimider par des messages. faalewuñ leen ñu yóbbu ñu toppatoo toppatoowuñ leen ñu jël euh, coopérative militaire bi demandé ko ñu mu instruire pour ñu yóbbu tribunal bi ñu yóbboo tribunal euh, procédure yi bi ñu demee ba aboutir première euh, instance dañ leen a débouté ñoom armée débouté Comico demandé état du Sénégal sax mu résilier bépp contrat bu amoon bu mu amoon ak Comico parce que tara jaaru ci yoon ci la ñu nag def seen tappale Euh, dem wuuti benn procédure am seen euh, justicier yoo xam ne dañ leen cee jàppale ñu dem ne état du Sénégal daf leen jaay benn euh, parcelle de trois hectares de terrain nu boo xam ne kenn dëkku fa ñun ci ay bâtiment lañ dëkk boo indee cette surface de trois hectares de terrain nu ñun ñu dëkk sur de quinze hectares de terrain bâti ñun suñu yoon nekkul ci yéen loolu lañ ko doxalee dem ak connexion ñëpp xam nañ ni Sénégal di doxee ba papier boobu lañu la ñu jibal keroog ba ñuy euh, déguerpir le 30 septembre 2020 man personnellement ba ñu ñëwee di wax loolu ma ne leen yéen vraiment ñun militaire euh, li nga xam ne moom moo xew terme sud ça n'a absolument rien à avec suñu suñu suñu suñu carrière euh, foofu terrain état bi la ça relève du domaine civil kon bu leen ñu lëkkale ak loolu ñu ne de toute façon yow daal boo génnul dootoo fi dem stage dootoo dem avancement ñu jël samay xale yoo xam ne maa leen daan jàngal maa leen doon toppatoo pour naqaral ma rek jël leen jàll leen sama kanam euh, sama stage bu ñëwee ñu téye sama avancement bu ñëwee ñu téye ko dem ba finalement sax ma yëg ne ñoom ci seen bopp ñu ngi def affaire soxor pour taqal ma pour mën ma rek euh, radier libérer ma yàqal ma sama carrière mm-hmm. loolu moo waral man ma génn armée yow da nga démissionné dama démissionné armée dama démissionné. Mm-hmm. kon armée mën nañ si démissionné. comme yeneen nga corps yëpp. ñun dafa armée dafa am ñaari pàcc. dafa am mm-hmm. ñoo xam ne c'est des militaires de carrière. kooku yaa koy yaa koy euh, demandé. ak ñoo xam ne c'est des contractuels. ñun ay contractuel la ñu woon da ngay signer contrat pendant un certain temps bu euh, demee bay waaj a jeex nga renouveler ba keroog ngay àgg retraite mm. le plus souvent contrat bi formalité rek la woon mais militaire moom en général kenn sax du la euh, donc juste avant contrat bi di jeex sax dañ lay woo nga renouveler ko voilà donc loolu la woon après man dama résilier sama contrat pour dem euh, ñoom ñu accepté accepté woon nañ démission accepté wuñ ko sax parce que lu ne def nañ ko waaw ba boobu moom laa mujjee man bi may génn armée ci condition yooyu il a fallu euh, bi ma sonnee ba sonn il a fallu ñu téye sama lépp il a fallu ma bind euh, chef d'état-major général des armées bi bind président de la république ba chef d'état-major général des armées bi fi nekkoon lu général Abdoulaye fal bi mu yëgee problème bi xam ni mu demee dafa mujj sax wëlbatiku dal seen kaw mm. keroog bi mu leen di yuuxu euh, guddi la leen yuuxu ñu xëy ñu ñu xëy su ñu guddi gi ñu ñaan ma pour ma indil leen euh, papier de résiliation bi pour ñoom ñu signé ko yóbbul ko ko mm. donc yëfu yëfu saay-saay dëgg lañ ma jaay fi yàq sama carrière topp ma ci sama carrière yàq sama këyit yàq sama lépp dégg nga écourté parce que euh, mënoon naa toog armée ba defar sama pension ba mu mat. Mm. mais dañ ma dañ ma dañ ma génnee de façon prématurée. poussé au départ. de façon la doon def daal moo tax xajatoo fa woon. nga nga bundu xataal dañ ma doon bundu xataal te bu ma fa toogaatoon tuuti ñu yónni seen nit. Euh, dal sama kaw yàqal ma mën naa liggéey sax ñu ñëw nit nit mu ñëw saboté ko ñu wëlbatiku ne maa ko maa ko def. Mm, ñu ñëw taqal ma daal di may euh, kii parce que yu mel noonu lañ ma lañ ma doon euh, indil di ma ko wax. donc pour yàq rien que pour yàqal ma rek keroog yéen ñëpp seetaan ngeen après le déguerpissement du terme benn euh, colonel bu taxawoon foofu ci TFM ci jàkkaarloo bi colonel boobu moo nekkoon sama supérieur hiérarchique moom moo tegoon sama tànk ci sama carrière fépp fu ñu ma désigné mu dindi fépp fu avancement ñuy jaar ci moom mu dindi ko donc keroog bi ñu toogee euh, ci kii bi ci plateau jàkkaarloo bi yéen ñëpp gis ngeen bi ma souligné affaire bi dafa ne nem munul munul sax naan mm. dégg ba tey jii fii mu toll nii euh, kii euh, loolu lu naqari askan wi la mm. donc ku may xool loolu nga may xoolee fu ma dugg ci cantonnement militaire yi wala ci caserne de gendarmerie ñëpp loolu lañ may xoolee dañ naan ma vraiment xoolal rek kii ñu yàq. Mm-hmm. carrière am comme ça. comme ça mais est-ce que est-ce que dossier terme sud bi foog balaa ñu ñu clôturer foofu par rapport ak dossier terme sud bi actuellement fan la toll dossier bi dañ ko classé mi ngi si justice wala euh, jàpp ngeen ni yéen daal ñàkk ngeen seen seen kër euh, voilà mënatoo leen si dara la ko est déjà parti. non non le coup ne peut pas euh, comme ça parce que ñoom yëfu yëfu tappale yëfu ay dañ doon dañoo dem fenn askan wi euh, indi jubadi lu kenn xamul ci militaire kenn xamu ko ci la haute hiérarchie donc benn lobby politiko militaire ñëw euh, fekk ñu fi ñu nekk dem def seen njuuj njaaj indi ay tappale ay fen ba keroog le 30 septembre 2020 gis ngeen yéen ñëpp euh, catastrophe boobu au soir du du déguerpissement bañ leen woowee pour ñu expliquer wu mënuñoo expliquer dara coopérative militaire ba ñu waxoon ne moom moo jënd ba tax kooku ñëw attaqué ñu expliqué ñu biñ ko waxee génneel say kayit mu génneewul lu nit mën a xam. Hmm. ba fii may wax ak yow nii expulsé nañ ko du terrain amu fa droit donc tey jii tout ce qui s'était passé le trente septembre c'est nul et non avenu donc. logiquement li waroon am mooy ñu réhabilité ñu delloo ñu suñuy droit fii mu toll nii bip loolu pare suñuy avocat jël nañu tout le dossier du terme su delloo ko tribunal tribunal mi ngi koy euh, mi ngi statuer dessus mm. il était question que ñu délibérer la dernière fois mais boobu ba léegi ñu ngi ko téye parce que logiquement ce qui doit se passer mooy ñi nga xam ne ñoo sooxe woon affaire boobu ñi ci laale woon yëpp en principe bu doon un état de droit ñoo ñëpp tey jii ils doivent même aller en prison waaw ils doivent tous aller en prison. parce que gëm ngeen ne di ngeen jotaat seen kër ba léegi Alassane non euh, loolu amul sax lam-laamee terme sud euh, bu fekkente ne rek dëkkuwaay la nit ñi war faa dëkk mënuñu fekk ñun ñu dëkk fa ba pare. état du Sénégal jox ñu ko à travers benn euh, plan cadastral. Mm-hmm. ba loger ñu ci biir ba def ci suñuy turoog yëpp ba di waaj a génne ay ay ay boo pour jox ku nekk sa baay ñu xëy suba teel jaay doole indil ñu plus de deux cent gendarmes dal ci suñuy famille traumatiser leen fii may wax ak yow nii pas plus tard que la le mois dernier on a perdu deux de nos épouses donc suñuy jabar ñi ngi dee benn par benn suñuy doom ñu ngi dee suñu ñun ci suñu bopp. suñu genwàll gi yëpp ñi ngi AVC parce que traumatisme la traumatisme bi socialement c'est trop dur c'est trop dur extrêmement dur et l'État ne fait absolument rien pour vraiment remettre les gens dans leurs droits euh, kon kon ba léegi famille yooyu fan la ñu nekk Alassane parce que à un moment donné ne woon yéen a ngi si Barthélemy après déggaatuñ si dara voilà donc euh, Barthélemy c'était Barthélemy était venu était venu juste pour secourir les familles c'était un, un secours d'urgence ba mu ko defee aussi vraiment il suit il suit le dossier il il n'est pas seul il était avec Ousmane Sonko il était avec euh, Guy Marius Sagna le, le précurseur même de ce de de cette euh, assistance là euh, léegi nag bi ñu defee loolu ba pare euh, fi ñu logé woon il fallait le libérer parce que école la mm. donc centre la il fallait libérer bi ñu ko libérer euh, ni ñu dëkkee woon les gens ne pouvaient plus retrouver euh, schéma boobu mm -hmm. ce qui fait que euh, les familles étaient waaw jabar jaar nii soxna jaar nii jëkkër jaar na le doom yi jaar na le donc euh, ku ci amoon feebar muy feebar euh, bu bu bu, bu doy waar mm-hmm. tey jii euh, na ma yàlla baal ñu ci bari génn nañ àddina ñi nga xam ne traumatisme gagné la leen am na vraiment ñi ngi montré ay signes ñi genre démence sax moo leen dal ñi vraiment euh, désolation totale situation sociale bu méttee métti Euh, Alassane Hann ban at nga génn armée euh, bi nga génnee armée socialement noo ko dundee. Euh, génn armée ni ma la ko waxee euh, dama génn armée malgré moi parce que armée ku ciy dugg di ci def ñaar fukki at ak juróom da fas yéene def carrière. waaw euh, vraiment bu bu ma jëriñee sama réew pendant vingt cinq ans li ma moo waroon mooy mérité euh, ne serait-ce que euh, reconnaissance mais keroog bi may génn armée même sama certificat de bonne conduite équivalent wu certificat de travail chef de corps boobu ma jàkkaarloo loon ci émission boobu te mu doon te mënatul woon wax dara dafa téye sama certificat de bonne conduite loo xam ne ah. même soldat. Hmm. boo xam ne euh, durée légale am après deux ans dañ koy libéré dañ koy jox certificat de bonne conduite. dañ dañ la ko xay. dañ ma daf ma daf ko téye bañ ma ko jox dem naa ba porter ko plainte fële au niveau de la gendarmerie prévôtale bi ko commandant gendarmerie prévôtale euh, bi woowee. Hmm. muy taafantoon naan ñoom dañu amul ay talon. Hmm. moo tax établir gu ko ba léegi. alors que ce devait être bu ñu may jox samay document dañ mu dañ ko ci war a boole moom mu téye ko mm-hmm. armée de l'air téye ko man maa leen ci toppul ba léegi parce que tey jii bés bu ma xëyee mën naa taxaw jàkkaarlook ñoom ne leen sama certificat de bonne conduite jox leen ma ko léegi léegi wala man ak yéen fu mu yem neex mm-hmm. parce que sama yëf la maa ko moom mm-hmm. ci sama droit la liggéey naa plus de vingt cinq ans mënu leen teg dara ci sama loxo lu waral man tey jii waruma am certificat de bonne conduite parce que pour ñu xañ la ko da ngay nekk kenn koo xam ne ku indiscipliné nga mm-hmm. waaw man indiscipliné wu ma euh, sama qualification jéggi woon na dayo boole kook fu ma dem indi leen ay lettres de félicitation mm-hmm. en principe ñoom ci seen bopp dañoo waroon na sax man ci sama bopp dañ ma waroon sax décorer décorer voilà delloo la njukkal delloo euh, est-ce que yow d'accord nga si ñi naan euh, pratiquement euh, léegi dañu war a def comme en France maanaam service militaire pour bépp xale lu góor bu am dix-huit ans au Sénégal est-ce que yow loolu d'accord nga si waaw wala déet. en principe pour dëkk bu bu bu jaar yoon. Hmm. dëkk bu fas yéene bu dëkk bu bëgg sa bopp. bépp xale boo xam ne toll nga ci euh, disons euh, âge de de de de majorité war ngaa mën a am sa sa formation même bu dul formation euh, à durée disons de deux ans war nañ la mën a defal benn formation militaire pour nga am un certain civisme heure bu la soxla parce que a jamono day dox tey jii li ñu jànkoonteel ay xale yoo xam ne tey xëy na të nañ ñu xamatuñ fu ñuy teg seen tànk am na muñukaay yoo xam ne amuñu ko un militaire euh, mooy koo xam ne euh, àddina du metti ba mu teg tegu ci géej gi naan day euh, day barsa wala barsaq lu ñëw am na nu mu ko mën a gérer moral bi moralement am na il est moralement fort ñu mel noonu xale yu mel noonu Sénégal dafa waroon a sukkandiku ci en principe même je crois que euh, loolu euh, loi bi euh, mi ngi fi en principe tout adulte doit être soumis à, une formation plus ou moins militaire waaw mais d'accord naa ci loolu moom dina defaraat réew mi dina defaraat jikko yi mm. dina tax xale yi ñoom ci seen bopp sax am fu ñu tegu te am yoo xam ne aussi dañ koy bañ parce que xale euh, bu ñu demee ba euh, amuñu disons euh, kii boobu rythme boobu mooy waral tey jii loo leen defloo ñu def ko mooy waral ku koo ci woo pour ger ko nga mën koo ger koo ci woo pour jaayloo ko drogue nga mën ko jaayloo drogue koo ci woo pour def la agression mu mun a def agression donc yooyu yëpp bu fi amoon dina deñ te bu boobaa sax état bi ci boppam am na yu bari yoo xam ne mu ngi xew ci réew mi état bi du ko am sañ-sañu def ko donc dëkk bu jaar yoon xale yi dañ leen di dañ leen di tàggat voilà beneen ponk bu am solo di crash euh, avion Sénégal Air bi nga xam ne amoon na ci 5 septembre 2015 euh, juróom-ñaari nit euh, ñàkkoon ci seen bakkan yow Alassane Hann expert aéronautique nga bokkoon ci ñi nga xam ni wala nga nekkoon ki nga xam ne doon nga alerté ci état wu avion boobule avant muy daanu est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun si mbir mi parce que à chaque fois bu ñuy célébrer anniversaire drame bi suñu xel dafay dem si yow Euh, lan moo la collé ak euh, drame boobule. voilà donc euh, transition bu ndaw. Mm-hmm. Euh, nee na leen 2011 laa jógee armée mm-hmm. boo gisee sax sama jógee armée gaawee noonu c'est parce que directeur général u Sénégal Air boobu bi ko Euh, direction générale aviation civile single ne ko il faut nga am benn responsable technique bu mën a taxaw di la lijjantil say roppalaan mhm. euh, dafa ñëw jël si ma donc euh, demandé ma mu ñëw jàppale ko bi ma demee mu gis sama mhm. njëriñ automatiquement après mu débauché ma débauchage boobu moo waral man ma jóge foofu mhm. daf ma signer la contrat bi jox ma lettre de nomination avant même may résilier sama contrat dégg nga léegi nag bi ma demee foofu mm-hmm. euh, avant may dem comme ni ma koy expliquer un peu partout waxtaanoon naa ak directeur général parce que compagnie la boo xam ne man bi ma nekkee armée amoon nañ suñu ñaari collègues yoo xam ne fa lañ leen ñàkkee mm-hmm. donc dafa doon caaxaan rek ba mu ñëwee di wax ma ne ko sa caaxaan yooyu bu fekkente ne ma nga fa man foofu duma fa mën a ñëw ci la ma waatal ne dara nekkatu fa lu mel méngoog loolu mm-hmm. bi ma demee nag gis naa ko gis naa Euh, lu rew li ma fa doon ragal sax moo fa ne waaw ci biir nag euh, sama sama yar ak sama dal may ma may waxtaan ak moom di waxtaan ak euh, ñi nga xam ne ñoo fa ne parce que compagnie la boo xam ne woon disons en principe bu jaaroon yoon waratul woon sax nekk foofu. Mm-hmm. avion bi ci boppam. Ah, non moom compagnie bi ci mm-hmm. boppam. ci boppam waru nekk. Mm-hmm. parce que daraam jaarul woon yoon. du personnel du matériel du installation du dara dégg nga socialement ay ay nit ñu fa doon liggéey daf leen tegoon comme ay ay ay bàyyi ma. Mm. dégg nga donc euh, man bi ma ñëwee fekk fa loolu. Euh, te li ci gënoon a doy waar mooy euh, bi may recruter pour ma ñëw di ko jàppale dafa fekk moom muy def desserte Dakar Ziguinchor xoolal suba teel bu ne rek. Mm. nga war a taxaw roplaan ñaari roplaan ñu ma ñu war a mën a jógee euh, Dakar dem Ziguinchor yóbbu ay fukki nit ñaar fukki nit ñeent fukki nit ba parfois même ba cent personnes. Mm. parce que daan nañ def ay rotation à n'en pas finir. Mm. boole koog nag ay vol à la demande nit day am. Euh, soxla pour dem fenn rek daal di koy woo pour mu jox ko roplaan donc noonu la demee woon bi ma demee ba commencé gis jafe-jafe yi ma commencé di ci waxtaan ak moom di ko sensibiliser en tant que technicien man ci sama bopp et vraiment di moral pour moraliser euh, structure bi euh, moom ci boppam même xale yi fa nekkoon demoon nañ ba gis commencé gis changement mais moom loolu arrangé wu ko woon parce que loolu day tax moom muy génne xaalis di dépenser te moom li mu taxawoon rek mooy euh, nay nay dem mission rek di am xaalis te du dépenser dara léegi nag bi ñu demee ba ci biir en 2012 ci la jënd avion bi nga xam ne moo daanu nii alors bi ñu ko jëndee nag avion mi ngi ko jëndee Irlande comme ni mu ko waxee toujours bi mu ñëwee bi avion bi ñëwee. dans un premier temps. ñaata la jëndee woon avion bi. cher woon euh, aw ma euh, chiffre exact yi mais vraiment dañ ko ko bazardé woon. waaw je l'ai compris occasion dama ko bi ma koy comprendre parce que bi biñ ma waxee njëgu avion bi sax dama ne leen yéen xanaa da ngeen a def dañ ko ko may kon. Hmm. Euh, mais il a fallu que bi may def inspection avion bi ci laa doog a xam ne kii ndekete dafa dem jëndi carcasse. Hmm. donc bi ma ñëwee bi avion bi ñëwee. Euh, ma di ko inspecter euh, comme de de de de ni mu war a demee rek. Hmm. ma inspect bi ma koy inspecté ci laa gis na vraiment du franchement du du avion boo xam ne war nañ koo teg ci tarmac muy naaw. Hmm. Euh, dafa laajoon lu baree baree bari. Euh, fi ñu ko jëndee nag euh, en général foofu noonu la genre no man's land la mm-hmm. donc euh, ñi nga xam ne tappale moo leen tax a jóg yëpp foofu la ñu dem di jëndi roxlaan mm-hmm. donc bi avion bi ñëwee man ci sama bopp commencé woon naa am ay jafe-jafe moom foofu parce que li ma ko doon laaj rek mooy surtout avion la boo xam ne dafay dafay dafay dem day naaw bu ci kaw mm-hmm. day fekki avion yu mag a mag yi nekk ci kaw a kaw performance ya muy demee dafa laaj avion bi jaar yoon Euh, te compagnie bi ci boppam jaarul yoon organigramme bi jaarul yoon mm, euh, manuel yi c'est-à-dire documentation bi nga xam ne mooy euh, mooy pièce maîtresse wu compagnie aérienne jaarul woon yoon équipe organique amu fa muy benn cocktail explosif boo xam ne en principe bu jaaroon yoon aviation civile bu ñëwee di def audit waru ko sax bàyyi foofu mais bàyyi nañ ko fa pourquoi la euh, kii bi procès bi dina ko leeral euh, bàyyi nañ ko fa daal maanaam man bi ma demee ba ci biir dem naa ba jamono yoo xam ne ragaloon na catastrophe mm. éclaté mm. waaw moo waraloon bi ma doxee ba sonn mënuma xam euh, mënuma am résultat mm. catastrophe bi di profilé wu ma xam ne lii léegi mu explosé ma ne quand euh, nit ñi nga xam ne ñi ngi jël avion surtout le plus euh, important ci affaire boobu mooy c'était pas n'importe qui va compagnie euh, aérienne d'affaires la woon ñi ko doon jël en général ay ay autorité lañu ñii président de la république lañu ñii ay ministres ñii ay directeurs généraux ñii ay premières dames et cetera mm. donc ay hommes d'affaires donc il fallait quand réagir donc bi may jëlee. te moom dafa lii la faaw nga bu metti mm-hmm. danger bu doy waar. Euh, ni ma koy waxee rek en principe bu doon compagnie bu jaar yoon organigramme bi permettre ma sax man ci sama bopp. Mm-hmm. ma wax ak moom. Mm-hmm. amoon na benn personnalité euh, première boo xam ne moom moom la ñuy lëkkaleeg moom euh, direct. muy le le responsable qualité nga xam ne bu problème amee moom mooy dem wax ak directeur général bi directement mais kooku amu fa woon. donc yoonam nekkul ci loolu. léegi moo waral man ci sama bopp en tant que responsable technique de premier plan man maa yoroon pratiquement compagnie bi ñi ci des ñëpp amul kenn ku fa am qualif euh, ki euh, contrat amul kenn ku fa am dara ñu ñi ay xale lañu yoo xam ne jaaruñu sax école euh, aéronautique ñi ay mag lañu yoo xam ne dem nañ ba retraité kenn signé lu leen contrat bokkuñu ci compagnie bi daf leen jël nii rek hmm. dégg di def ay bouche trou léegi nag catastrophe boobu nekk foofu mu bëggoon aviation civile ubbi këtam mhm. c'était pas pour euh, yàqal ko moom ci boppam mhm. mais c'était plutôt pour arranger ko et le plus important pour éviter catastrophe nit ñi ñàkk seen bakkan d'autant plus que wax naa leen ko fi en 1995 compagnie bi euh, ay avion daanoo nañ foofu. Mm-hmm. ba juróom-benn ñàkk fa seen bakkan. Mm-hmm. am na beneen catastrophe boo xam ne madame Ndioro Ndiaye. Mm-hmm. ancien ancienne ministre. accident ba fi defe woon ci compagnie boobu la woon. donc. une série de catastrophes boo xam ne ba muy am ñun ñi ngi armé di dégg caaxaan yi nekkoon ci compagnie yooyu man ma ñëw fekk ko fa gis ko fa. di di du sax dema doon rek pour wax pour. Euh, aviation civile jël ay responsabilités. Mm-hmm. mettre ko au pas pour mu respecter normes yi mais gis nañ ne mu ñoom seen bopp yàqal naa leen. Mm-hmm. bi ma demee ba sonn ci laa def euh, rapport bi ma def bi ngeen di dégg noonu. Mm-hmm. Euh, donc defal leen ko euh, def ay ampliation envoyé ko président de la république envoyé ko autorité yi ma ko envoyé yépp pour ñu ubbi seen gët malheureusement dama def rapport bi le 17 avril 2013 dans la semaine mu élaborer benn plan pour licencier ma le vingt quatre avril moins d'une semaine après mu licencier ma. mu yóbbu licencier la comme ça ma comme ça et évoquer ay euh, un, de, de, difficulté économique. Mm-hmm. bi mbir mi demee tribunal gis nga ne condamné nañ ko. condamné waat ko à trois reprises ba cour suprême mm-hmm. bi mu demee huissier dem di jëli ay bagages pour mu fay ma liñ ko teg nëbb bagage yi ñu delloo si ko foofu tribunal correctionnel ba finalement dañ ko condamné à une peine de prison ba pare tegaat ko ay dommages yàlla est jotoon nga sa xaalis. ba léegi jotuma ci sama xaalis. parce que man ci sama bopp benn benn lobby moo ma sëf doole. Hmm. Euh, gis nga taxaw nañu depuis armée ñu def ma liñ ma def ma ñëw aviation civile ñoom ñuy ñu yor seen caaxaan di caaxaan may wax ak ñoom ñu may jaay doole di bëgg a faat bakkanu askan wi. Hmm. Euh, fekkente ne man dogu naa pour jël fetel fu askan wi war a euh, sooxee ma ma taxaw defendre leen du taxaw di wax rek pour nga bañ a rey bakkan moo may të ma wax ak ñoom ñu may jaay lu kenn xamul di jaay ne ñoom ñoom moom Sénégal tey jii anañu catastrophe bi am na roppalaan gi daanu ci géej gi juróom-ñaari nit ñàkk nañ ci seen bakkan ñu tey ñoom ñëpp ñu nga devant la barre devant le tribunal lii mënuñu mënul woon ñàkk lii warul woon mësa am biir Sénégal waaw est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci ci procès bi parce que actuellement euh, dossier bi euh, tàmbali na même su fekkee dañ ko renvoyer encore euh, ci dossier judiciaire bi actuellement. waaw dossier judiciaire bi catastrophe bi bi mu amee bi avion bi daanoo ah. président de la république ci boppam. créé seen cellule de crise pour ñu def investigation. ci la ñu déclenché plan Orsec bi ñu def ay recherche au niveau de l'océan pour dem xool retrouver avion bi pendant plus de deux semaines ay avion ay bateau yëpp dem di recherche gisuñu bateau bi gisuñu avion bi parallèlement ñu def enquête technique ak enquête judiciaire au auto autosaisiru bi ñu defee enquête bi pendant plus de deux semaines ay ay inspecteur de police des enquêteurs ñëw ñu woo képp koo xam ne xalaat nañ ne bokk nga ci ñu déglu la defal la procès verbal à l'issue ñu def benn rapport envoyé ko au procureur et au président de la république tey jii ubbi nañu dossier bi te avant boobu sax euh, apparemment affaire bi dafa yéexoon ba finalement bi euh, terme enquête yi génne France comme benn tubaab moo ci ñàkk bakkanam France daal di envoyé commission rogatoire ñu ñëw demander euh, dakaar pour ñu ubbi dossier bi ci lañu ubbi dossier bi xool gis ne ñiñ ci cité ñëpp dañ leen war a déglu bi ñu leen dégloo ci lañ leen inculpé pour homicide mm-hmm. placé leen euh, sous liberté provisoire tey ñoom la ñuy jugé mm-hmm. malheureusement mm-hmm. compagnie aérienne bi ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu incriminé woon leen yëpp de deux mille quinze à de deux mille quinze à nos jours ñoom ñëpp ñàkk nañ seen bakkan ñoom feebar dab na leen ba ñoom ñëpp daal tàggoon nañ benn par benn mu des nag ñi nekk autorité aviation civile yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk devant la barre pour layoo ak ñoom man nag defuma leen dara alors man vraiment sénégalais la nekkoon mais, mais vous vous tenez tant à ce procès euh, procès bi yow daf la soxal lu tax. mais procès bi daf ma soxal d'autant plus que man tey jii je peux dire que je suis la huitième victime il y a sept qui sont actuellement foofu euh, en plein océan. je la huitième victime en ce sens que d'abord euh, consciencieusement. Euh, dafa di catastrophe boo xam ne euh, daf ma mu ngi ci sama conscience. mu ngi ci jóge. deuxième chose dama ko xeex. ba sonn pour mu sama domaine la sama ci samay responsabilité la newoon warul woon mën a am ci en aucune façon ñu fexe ba mu am tey jii ay nit ñàkk nañ seen bakkan mbir mi dafa war a leer boole kook nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ko sooxee ñoom ñëpp ñu lëkkaloo téema ne ma dootuma liggéey depuis 2013 date de ma de mon licenciement ba fi may wax ak yoon nii mënuma teg tànk ci structure pour liggéey parce que ñoom ñoom ils ont décidé que man mii dootuma dootuma tekki dara dootuma am revenu dootuma am dara il faut actu euh, absolument que ñoom seen bopp ñu rey ma mm-hmm. donc samay droit boobu ba léegi ma leen koy laaj nanguwuñ ma koo jox ba pare nag taxaw teg seen tànk ci sama lépp même sama euh, décision de justice bi nga xam ne décider na pour ñu delloo ma euh, jox ma samay euh, émolument de salaire ak samay dommages et intérêts sax mm-hmm. ñu ngi def tout pour que loolu bañ a génn mm-hmm. donc depuis neuf ans fii may wax ak yow nii ma famille est en train de souffrir te socialement noo ko dundee noo ko dundee Alassane ça va être xalaat leen rek euh, yow ngay liggéey fenn ñu toog un mois deux mois trois mois kenn joxul a salaire lu lay mën a def man ñu war ma téye pendant neuf ans amul li ma sama àddina yëpp lañu yàq sama avenir doom yëpp la ñu yàq xale yi doon di nekk ci privé ñu jëlee jële naa leen fa kër gi ma jëndoon a jam ñaajo di ko tabax j'étais obligé de le revendre pour euh, taxaw sama njaboot aujourd'hui je vis sous location boole kook ñoom seen bopp lobby la wax naa lobby la lo c'est le même lobby. moom yow daal liggéey daal li des ci sa. dootuma dund. lobbi boobu moo ma fekkaat terme sud. toppaat ma terme sud ba dëgër piir ma terme ba fi mu toll nii je je vis sous location pour lan alors que personnellement euh, bu doon dëkk bu jaar yoon. defe naa ne euh, bu ma bëggee retraité sax du ma retraité. Hmm. le président de la république tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo toog foofu euh, à la président de la république di di toppatoo roppalaanam bi nga xam ne moom la yor mu koy yóbbu di ko delloosi xale yooyu ñaari xale yooyu di ko toppatoo toog nañu ci bangu euh, classe ma leen ma leen di jàngal roplaan. Hmm. dégg nga naa leen. tey jii man waroon naa nekk bu ma waree retraité sax ñu bañ. mais aujourd'hui pour seen intérêt personnel nee nañ ma dootuma dund lépp lu ma amoon comme expérience pour pour ñoom na nul bu ko benn sénégal jëriñoo. yow tey jii Alassane nga am kon appel boo bëggoon a euh, lancer président Macky Sall ba pare yow lan nga bëgg ci sa cas exactement. mais sama cas du lenn lu dul affaire soxor. man nag je suis un Sénégalais bi ma amee ba bi ma demee ba ñu attaqué ma mm-hmm. d' abord au niveau de l' armée bindoon naa président de la république pour mu intervenir parce que lañ ma tegoon tey jii yëpp wone na ne c' était une injustice kenn secourir ma euh, j'ai manqué d' assistance bi ñu ñëwee aviation civile pareil président de la république du wax ne yëgul problème bi mm-hmm. parce que catastrophe aérienne fu mu amee fu mu amee le premier le premier concerné c'est le président de la république moom ci boppam créer na cellule de crise instruire na pour ñu def enquête enquête bi génn na xam na ni mu demee xam na ne defoon naa rapport euh, organisme de défense des droits humains yi jël nañu sama dossier jébbal ko ko pour mu delloo ma ci samay droit dégg nga waxuma la delloo samay droit sax mais bu porté ma assistance bu doon dëkk bu jaar yoon tey jii man à la sax décoration lay am mm. reconnaissance nationale mais boobu ba léegi mi ngi may ignorer pourquoi à quelle fin bu doon benn élément bu bokk ci mouvance présidentielle la tey jii da koy tiitaroo moom nag man personnellement euh, depuis des années bëgguma wax mais aujourd'hui je le tiens pour le principal responsable de toutes les déboires yi nga xam ne moom lay vivre moom la sama famille di vivre et c'est pas normal c'est à la limite même c'est criminel dama koy laaj nag dama koy demander hmm. vraiment mu jëlaat dossier bi delloo ma ci samay droit parce que avant tout je suis sénégalais. nga bëgg a delluwaat si armée bi wala foo bëgg a delluwaat. non non fii mu toll nii man euh, Ndeye Comba. Hmm. dama dootuma xale. Hmm. Euh, mais soxla nañ sa expérience. je sais pas. bu leen bu parce que man à la limite euh, fépp fu ñu fu ñu ma soxlaa war naa mën a taxaw fépp fu ñuy jàngale wala tàggat ay xale pour aviation wala même pour militaire ma taxaw jàppale leen foofu ak yeneen domaine sax parce que man ci sama bopp euh, dama sama expérience dafa euh, am laal na ci lu baree baree bari euh, donc ñoom ci seen bopp biñ may attaqué bi may boobu je n'avais cinquante ans sama mais di dernières années d'expérience la ñu jël sànni ko ci mbalit ñi donc et aujourd'hui dama dem ba atteindre l'âge de la retraite keroog bi may jógee Sénégal Air euh, dama def demande pour dem aviation civile pour nekk fa inspecteur de navigabilité mm-hmm. amul benn inspecteur buy taxaw aviation civile boo xam ne war ngaa mën a taxaw ma taxaw dégg nga nga ne ma fii doo fi taxaw amul yóbbu luñ ma dara la preuve li ma def euh, seen liggéey laa leen defal ñoom ci seen bopp dama daan dem ba foofu di leen sotti xel di leen sotti xalaat ñoom ñëpp avant catastrophe bi ñoom ñëpp ñu ko daan rafetlu waaw mais nag bi catastrophe bi amee ñoom mënuñoo gis leneen lu dul man à la limite dama leen dénoncé dénoncé wu ma kenn dama alerté parce que y des vies en souffrance amuñu droit di fowe ay bakkenu nit de surcroît ay nit yoo xam ne dañoo fay xaalis pour ñu transporter leen xool leen rek nga feebar ñu war la évacuer indi la pour faj la ñu jaar ak ci géej gi xooj la foofu waaw ba pare eh, ay médecin yëpp médecin bi ci décédé infirmier yi ci décédé tey ji lan la ñu mënul woon jëriñ askan wi fii anamu ñoom ñëpp dem nañ seen yoon ci lan ci ay caaxaan man ma doon daw loolu di dénoncer loolu pour loolu bañ a am. ñu war war ma décorer def ma lépp mais tey jii ñu taxaw bundu ma indil ma jafe-jafe bu tar boo xam ne fu ne maa fay dugg génn pour ñu delloo ma ci samay droit euh, bu ma bu doon euh, peut-être que sama sama diine. ak sama formation militaire may nañ ma benn force mentale boo xam ne war naa mën a euh, chaque fois lu mu metti metti ma di ko muñ. mais bu doon euh, am na am na foo xam ne bu fa àggee dinaa leen fekk fi ñu ne du palais de la république du état-major général des armées du cantonnement militaire yi fépp foo xam ne xalaat naa ne bu ma fa demee dinaa fa dinaa yëglu mm. dinaa fa dem waaw parce euh, kon mu nekk lu doy doy wax ma jàpp ni kon message bi dina yegg fa mu war a yegg euh, ñu gis ni Alassane Anne euh, beneen tournée parce que armée dañ ko doon wax grande muette mais gis nañ depuis quelque temps ay nit yu jógee si armée bi ñoom ñooy daal di wax ca cas exemple parfait la gis nañ fi kaaw capitaine toure yow ban analyse ngay def ci ci mbir moom lu waral ay géant wu armée bi jóg génn di dénoncer li nga xamante ni moo am ci armée bi. te xamee wuñ leen woon wax. waaw armée euh, nañ ko xamee woon. bu fekkoon ne noonu la continuer lii yëpp du am parce que ay chef militaire amoon nañu fi vraiment muy chef yoo xam ne bu doon ñoom la kaa bi ma dal nii du ma mës dal cas bi daal capitaine Touré du ko mës a dal cas bi dan capitaine Dieye du ko mës a dal euh, lii am nii c'est parce que. armée dafa fi mu nekk nii dafa jàll ci ay mutation yu baree bari ñu dugal ci xaalis bu bari euh, dugal ci ay intérêt dégg nga ba pare euh, mu am ay conflit d'intérêt nit ñi di soxorante mm-hmm. dégg nga euh, discipline militaire réglement militaire la mu tëral bu ko ñëpp jëfandikoo kenn du am problème kenn du am problème man maa ngi nii bi ma nekkee armée malgré Eh, li ma fa am yëpp daañ ma daan dañ ma daan tooñ ba bëccëg ñëpp gis nañ ne dañ ma daan tooñ mais mësuma jéggaani mësuma jóg affronter leen mësuma bi ma demee ba xam ne mënatuma toog foofu dama bind sama résiliation de contrat génn parce que armée du foo du loo xam ne da nga fay nekk di xuloo wala ngay xeex. parce que da nga génn ba pare doo ko wax. mais ay capitaine Touré ay Dieye ce n'est pas Touré. Mm. contrairement à li ko nit ñi di tuumaal capitaine Touré. sama gis-gisu bopp laay wax. Mm-hmm. capitaine Touré fa mu nekkoon capitaine Touré xam naa ko bu baax a baax keroog bi euh, crise terme sud di am man ci sama bopp interpellé nañ ma yóbbu ma section de recherche capitaine Touré moom ma waxtaan nañu gis naa ko xam naa mooy kan nit ku en fait euh, nitu nitu neen la. c'est-à-dire euh, genre mooy genre yooyu nga xam ne mm-hmm. du ñu gis dëgg dëgg ci seen tànk di indi fen di teg ci kawam kooku du ko de kenn mënu ko koo defloo dara jaralu ko ko lii fi xew nii muy dossier boo xam ne indil nañ ko ko gisu ci loo xam ne tey jii war na cee mën a àddu pour euh, ñu ci indi ay caaxaan ba di ci bundu xatal ay nit. Mm. dem di ci jël koo xam ne euh, doomam mu ngi hôpital ñu di ko ci bundu xatal guddeeg bëccëg. Mm. loolu yëpp mu di ci teg gëtëm euh, ngoram mayu ko ko. ngorom ci boppam mayu ko ko. c'est pour yow capitaine Touré limu mu def ce n'est pas grave. en fait euh, euh, waxuma. ci côté professionnel quoi professionnel ak xar armée ñu ko xamee ak moom tamit euh, place bi mu occupé woon. ñoom ñoo yóbbu capitaine Touré ci li mu def noonu parce que bu jaaroon yoon capitaine Touré bu bindee li muy bind ba pare jox leen capitaine Touré à la kenn waru ko ci woon bundu xatal mais gis ngeen ni leen ko waxee. man luy capitaine Touré di expliquer man vivre naa ko ñu lay booleeg ay nit ñu di la filer di la di la topp di la def looyu kenn xamul man nee naa la bi ma nekkee armée dem naa ba ay ay ñu nekk biir armée sax ñooy wëlbatiku naan ma yow fexeel ba fooy tekk bu mu doon suñu sago sax dootoo laal dootoo laal avion yi mm. mais mënuma ko mënuma ko def parce que Euh, avion yi dañ demoon ba mel ni samay doom. Hmm. ñoom ci seen bopp bu ñu jaaxlee ba jaaxle. dañ may woo. bu ñu demoon dem nañ yóbbu nañ fi avion usine. Hmm. usine ba Hollande avion bi dellu si am ay jafe-jafe yu tar yoo xam ne usine ba sax réglé wu ko woon keroog ba ñu jaaxlee ba jaaxle man la ñu woo. ba ma ñëwee bi ma ko réglé ñoom ñëpp ku ci nekk da jàpp sa bopp noo def noo def ma ne leen du ma leen wax nu ma def. Hmm. loolu def ma ko pour ñoom dama ko defoon pour Sénégal. parce que ñun ay fois suñu suñu dañoo nàmp ci technique lii lycée technique lañ jógee te jàng li ñu jàng yëpp ba am suñu bac e donc ñun tey duñu duñu duñu duñu taxaw te li ñu def yëpp tiitaruwuñ ci euh, wutuñu ci intérêt wutuñu ci xaalis bu doon xaalis la defe naa duma duma duma dugg armée ma demee aviation civile aussi Euh, dama daan liggéeyal waa ji ba parfois sax duma wàcc damay liggéey ba fajar ay heure supplémentaires ñu war ma ko fay kenn mësuma fay heure supplémentaire musuma leen ko laaj et pourtant ci la bokk d'ailleurs sax bi ñuy def procédure bi tribunal laaj nañ ko ko mais musuma ko koo laaj man parce que loolu du woon sama sama intérêt donc mu nekk lu doy beneen euh, peut-être euh, quelques minutes moo ñu dese bareetul euh, sujet d'actualité général Fall mooy chef d'état-major général des armées moom ñu ngi gis ni mi ngi fu militaires yi parce que nee na ci ni ñu utiliser réseaux sociaux yi képp koo xam ne yaa ngi utiliser réseaux sociaux yi ci anam boo xam ne yi bëgg ko dinañ la daan dinañu dal sa kaw yow ban jàngal nga am ci déclaration bu général Fall. général Fall dafa yéex. Mm-hmm. waaw euh, loolu. Euh, moo bi réseaux sociaux yi di juddu la waroon juddu ànd ak ñoom maanaam armée dafa war a évoluer en vase clos euh, armée nag dafa subir ay mutations yu bare bari entre temps donc armée jóge nañ fii ñu jékki-jékki ne leen da ngeen di voter dégg nga di war a am candidat war a am ay ay ay ay ay am ku ngeen faral. armée warutoon a mës a àddina warutoon a armée sénégalaise la bëgg a wax sax addi àddina warutoon a mës gudd tànk ba mu am fu ñu far tey loolu am na armée dem na ba ci biir ñu xëy suba teel euh, mu nekkoon euh, unicolore ñu indi ay jigéen dugal ci biir ci anam yoo xam ne préparé wuñ ko parce que keroog bi jigéen ñi waree ñëw dugg armée ay ay ay ay ay suggestion sax yónnee nañ ñu ko pour ku nekk joxe say xalaat ñun bañuñu woon loolu waaye procé processus bi dugal jigéen ñi ci armée ñun xam waxoon nañ leen exactement naka lañ ko war a mm. defee mais dañoo jékki-jékki rek sotti sotti leen ci biir mu indi pëccaxoo bu kenn xamul réseaux sociaux yi ñëw bokk bokk ci te armée boo ci nekkee waroo waroo wax waroo wax ñii wax nag euh, ñii ay xale lañ ñii parce que armée bu njëkk Euh, formation bi na mu demee woon boo daan dem euh, douzième bataillon d'infanterie ngay def sa euh, formation initiale du combattant fa la ñu toje sa xol fa lañ lay defee militaire àddina dootoo ci bëgg dara dégg nga dañ lay formaté def la beneen nit tey jii boo fa demee formation boobu beneen formation la xale yi léegi daanaka ay bourgeois lañu keroog ba ma déggee ñu naan dañ leen di tegal ay table ñuy lekkee ku yi yu kenn xam ñun armée daawuñu daawuñu dem euh, bango te euh, ñibbisi en totalité hmm. lu ci ëpp da ngeen daan perte ay nit parce que formation bu doy waar moo fa daan nekk dafa metti woon ku judduwaan di dégg Dakar bango euh, da ngay tiit waaw léegi nag loolu yëpp amatul finalement ñëw nañu armée def na ay mutation mais toujours est-il que li général bi wax moom vraiment nañ ci góor góorlu nga si yow. mili ba à cent pour cent parce que euh, militaire di wax danger la. danger danger bu bu bona bona bona la. Euh, mën na indi sax implosion ci biir armée. imagineel rek tey ji armee bu ñu demoon ku ci nekk di par parloo kii fara kii kii fara kii ñu jékki-jékki euh, ngeen nekk ci béréb yor seeni fetal ñu jékki-jékki ñu ne euh, diw ak diw ñu ngi laalante yéen ci seen biir ngeen juwoo ku ci nekk braqué sa fetal kon sa morom mm-hmm. loolu waruta mën a am armée ñu bàyyi loolu ñu arrêté ko euh, voilà dernière question euh, moom mooy euh, est-ce que euh, yow Alassane nan nga naka nga gisee attaque bi nga xam ne armée sénégalaise def na ko ci base yu MFDC pratiquement yow foofu am nga fa expérience dem nga Casamance demati Casamance est-ce que est-ce que lu baax la woon c'était une bonne idée armée sénégalaise attaquer les bases du MFDC foofu ca Casamance yow ban jàngal nga ci am. wallaay Casamance. ba muy Casamance ba rébellion di rébellion armée sénégalaise dans la sa totalité unité euh, constituée yëpp dañ fa daan daje te euh, ñu opposé résistance bu kenn xamul ku ci nekk dégg nga fii ay euh, Babonda ay Mandina Mankagne euh, vraiment ñuy ay unité de d'élite ñu leen fay décimer rebelles yi nekk ay combattants constitué wu di miine terrain bi un peu partout dégg nga di ñu tegal ay ay ndëgg sërëx ay abati ay yu kenn xamul ñun ñu nekk ci jafe-jafe yu tar mënaluñ leen dara parce que au-delà de la rébellion il y a aussi les populations mm-hmm. mënuloo ñëw rek di sotti say armes ci foo xam ne ay civil a nga fa donc te ñoom bu ñu demee ba jaaxle dañu daw dugg ci biir population yi bi diggante boobook léegi nag euh, y a énormément de mutation donc euh, yàgg na xeex bi yàgg na ça fait bien de quatre-vingt-deux à nos jours ça fait quarante ans quarante ans de de crise en Casamance euh, dem nañu ba à la limite rébellion bi ci boppam ñu ci bari ci ñoom gëmatuñ ko woon dañu jóge ci rébellion indépendantiste jàll ci banditisme hmm. donc finalement euh, te am na aussi fu mu jaaroon ak euh, l'État du Sénégal du temps de Abdoulaye Wade ba mu demande seen démobilisation am ci ñoom ñu accepté ba mu ñëw réinsérer leen dans la vie sociale am na ñoo xam ne joxoon na leen fi ay terrain ba ñu jógee foofu rendre seen arme ñëw fii di liggéey am fi seen i jabar am fi seen doom affaire bi changé woon na ñi ci desoon nag mooy ñi nga xam ne vraiment ñoom euh, fas yéene wuñ faa jógee waaw mais amatuñu woon force bi nga xam ne moom la ñu amoon ba tax na dem fekki leen fa ñu nekkoon daal di leen euh, teggi foofu dégg nga pacifier zone yi loolu euh, lu ñu mën a rafetlu la mais toujours est-il que nañu bàyyi xel ne Casamance ci Sénégal la bokk Casamance. Euh, man mën naa wax ne toujours je le un peu partout que su juddu doon am amaat tey. Mm. Casamance lay juddoo. parce que dëkk la boo xam ne dama gis ne euh, boo dee xool Sénégal na ko xool ci Casamance. donc Casamance euh, nañ leen jàppale c'est vrai que nangu nañ base yi mais nañ continuer mine yaa nga fa di mm. décimer population yi nañu demine zone yi. ne ñu waxtaan ak les factions rebelles yi nga xam ne ñoom ñoo xaw a taxaw euh, te ñu waxtaan ak ñoom parce que amul benn crise boo xam ne euh, arme moo koy régler lépp mi ngi jeex autour d'une table ñu teg table de négociation ñu continuer di waxtaan ba trouver une solution Sénégal nekkat benn voilà euh, waxtu bi jeex na pratiquement Alassane Hann kon ma bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi waaw auditeurs yi moom vraiment aw ma seen fay maa ngi leen di gërëm di leen sant dinaay gis seen réaction le plus souvent te vraiment di réaction yoo xam ne euh, Sénégal rek moo leen ñor te bëgguñu injustice injustice ci boppam moo moo metti moo doy waar bu la dalee rek nga xam mooy lan ba tax na man képp ku ma gis ñu teg la injustice man ci sama bopp dootuma nekk waaw tegu na sama kaw hmm. mais gis naa ñeneen ñuñ ko teg donc maa ngi woo nag vraiment surtout état de Sénégal en premier lieu le président de la République pour vraiment mu walbatiku xoolaat sama dossier delloo ma ci samay droit te xam ne mi ngi métti mi ngi may méttital mi ngi méttital surtout samay njaboot di leen woo aussi par rapport au au terme sud la mu ëmb bari na traumatisme baa ngi fi les gens sont en train de mourir ci loo xam ne dañ leen a tooñ traumatisme bi ñu leen teg nañ ko réparer traumatisme bi euh, nous sommes le premier septembre le 30 septembre incha allah dinañ célébrer le deuxième anniversaire du déguerpissement à l'issue dinañ leen defal le bilan général de tout ce qui s'est passé au terme sud de toutes les injustices de tout ce que les gens ont vécu allant des traumatismes jusqu'aux injustices ñi nga xam ne dañoo retenir seen pécule ak yooyu yëpp am na ñoo xam ne ba léegi ñi ñu ñu ngi leen ñu ngi téye seen xaalis kenn nanguwu leen ko jox loolu yëpp dinañ ci dellu voilà jërëjëf Alassane Hann ñu koy remercier euh, bu baax a baax mu nekk expert euh, aéronautique kon ñu ngi koy remercier ci disponibilité am di leen remercier yéen suñuy auditeurs yi ànd ak ñun euh, chaque samedi de 10h à 11 di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine bi ba samedi prochain 10h jàpp 11h beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf.